waa ji li ma na ma de <laughs> nee na bee soxor <laughs> ooy nee na bee soxor yaayaa ñaari combat moo des combat bi lañ nekk nii moo <laughs> arbitre baa ngay waaj a sifflé Mor Yékini arbitre baa ngay waaj a sifflé kooku nee yoof rek moo ngi leen di la wax li làmb bañ ak li nangu. ma takkat ak gajji. ko peleelum waaye xam nga soos. xam nga soose bi lu mu wax. nee na lamboo naa la diyaala. lamboo naa la diyaala combat bi dóor bu daanu du am bii dóor bu daanu du amam déet. <laughs> malam ñaani wàcc na. moor yi ñaan na. diw na ci boppam. malam ñaani Mor Yekini. Mor mun na ko woo xeex. waaw. saa di remis mu wàcc jël ko. mu wàcc loolu waaye malam ñaani xeexkat la eh, malam ñaani ngi ñaw Mor a ngi ne tekk Mor dugal na ku malam ñaani <laughs> xale lu ma la ñaari loxo lay xeexee raak eh door mu daanu eh, eh dalay daan moo dalay daan dalay daan Mor nooju na <laughs> nooju na. moor xaw ngaa dee moor jóg na malam ñaani malam ñaani jóg na laay laa xalil waxoon naa la ñaari loxo <laughs> moor yikini malam ñaani moor eh, moor moor jël na ku moor jël na ku ardo may ko soow ardo may ardo soow mbaa nga ko nag ndeysaan ey bu la may ma soow malam ñaani moor yikini malam ñaani moor yikini ndeysaan malam ñaani wàccati moor yikini mooy ma kuubu malam ñaani ñaari loxo yi lay dooree moor yikini 10 combats 10 victoire malam ñaani bi mu fi mujj Toubacouta moo ko daan ci journée Assane Ndiaye Baol production eh eh malam ñaani laay laa door Mor Yekini Mor Yekini dangay lool kaaw eh Mor Yekini Mor Yekini kaaw laa ilaaha illallah Mor Yekini sol na ko sol na ko sol na ko dëbb na ko naax mu bañ mu wàcc malam ñaani xeex bee ko arrangé Mor Yekini malam ñaani moor yikini xeex malam ñaane ngay dóor moor a ngay buub waaw moor lii lan la malam ñaani moor yikini malam ñaani moor yikini malam ñaani moor yikini malam ñaani malam ñaani faayla maram ñaani moor yikini Momo TV nee moo ngi dee Momo wax ma lay rey reporter bee lay rey wala bii bee lay rey eh moor yikini daan na ñaani plaqué na ko jàpp ko plaqué ko moor kaay moor moor kaay eh